leen di gërëm bu baax ñi nga xamante ni yépp jamono bi ci biir réew mi ak si bitim réew ñoo ngi ñuy teewlu ci fi gën a sori ci biir Sénégal suma mbokk waa Caajaay waa Mbuur waa Cees ba fa gën a sori ci Sénégal waa Matam waa podoor waa Ziguinchor suma dëkku xol waa Kanel waa Njum fa gën a sori waa Ourossogui ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Thiès waa Kébémer waa Touba Mbacké waa Tivaouane waa Daka Médina Gounass Popenguine le clergé ñoo ngi leen di nuyu di nuyu ëttu diine yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ŋànk Sénégal di nuyu kilifa réew mi yëpp muy góor ak jigéen muy mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn.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 moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii métier bu am solo la ñuy def métier boobu ma doon def yàlla wërsëgale ma ko permettre ma nag ma dox ci biir Sénégal ak ci bitim réew rencontré sénégalais yu bari waxtaan ak sénégalais yu bari gis it seen yitte ak seen i bëgg-bëgg ak li nga xamante ni moom lañu bëggoon di ko nësër damay wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé.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 changer sunu nañu daan voté muy parrainage waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne joŋante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaanee te loi bi bi ñu koy def waxtaanee wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk. war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan parenage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma ma yaay yi suma ma yi suma ma rakk yi su mag yi suma ma yi yi nga xamante ni yépp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen gis suma ma jëmm dama leen di wat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla nappkat yi ma man leen a waxal seen soxla ndaw yi nga xamante ni jamono bu ne ñoo ngi jël gaal yi di dee ci géej gi seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati sunu kàddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a ne mënatul nekk dootuñu ko nangu ndaw yi Sénégal ëppale nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen a dem noppalu tool bi du booy moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle ñun alternance waxuñu sax alternance générationnelle waxuñu sax alternative générationnelle ñun solidarité la ñu wax entre les générations moi je suis très bien placé pour le dire parce que suma maam moo ma yar saa bu ma ko doon tàggu di ñibbi si fii ci dakaar dafa may wax ne ma yaa ngi may tàggu rek wéetaay di ma gane gëw ma conflit de génération li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations entre ces intelligences on a suffisamment construit de murs entre nous il faut maintenant construire des ponts et il aucune entité dans cette dans cette nation amul politicien professionnel amul koo xam ci boppam la nekk amul selfish amul individualiste amul koo xam boppam rek moo ko yitteel koo xamante ni mën na tere jëmm yi nga xamante ni defar Sénégal moom moo leen yëkkati ñu egg ci barab yooyu nga xamante ni fa la ñuy defaree Sénégal te jàpp nañ ne assemblée nationale nag wax dëgg yàlla barab bu mucc ayib la pour waxtaani réew mi barab bu mucc ayib la pour defar réew mi Serigne Fallou Mbacké daf daan wax ne li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek sax seen xel jël la waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj. kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju kan kan mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci loo réew mi loo xamante ni fàttalikuma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage femme sans blouse blanche waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale ndax dégg ngeen ci commission bi yor la santé au niveau de l'assemblée nationale Sëriñ Fallou nag moom moo wax loolu nee na kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la kon nag kilifa war naa assumer responsabilité bi mu am kenn waxul ne soxla yëpp dañ koy faj waaye ngal la waslu ci àq kon parrainage bi sénégalais yi ñëw ngeen ak doole bi ñu yëngoo rek ñëw ngeen waaye gën leen ñëw nag ndawi Sénégal nañu wane ne capable nañ yi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daldi di wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk. leneen li nga xamante ni dinañ ko wax mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nous sommes libres de tout. de toute partisanerie actuellement politique nekkuñu ci benn contingence politique amuñu tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit li ñuy def mooy tracer une ligne envisager une ligne boo xamante ni dañ koy construire boo xamante ni dañ koy liggéey ak ces sénégalais ces sénégalaises yi nga xamante ni sonn nañ ci bipolarisation bi nga xamante ni constaté nañ ko dans cette dans l'espace politique sénégalais machianisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk dans un effort de co-construction war nañoo laisser toute la place au débat démocratique war nañ ci bàyyi place à l'idée à la pensée à la réflexion stratégique bari na ay kilifa yu ma xam yu nekk ci réew mi mënatuñoo àddu sax ci débat public te pourtant ay boroom xam-xam lañ Sénégal deful leen lépp te mënatuñ ci àddu ñun xam nañ ci lu bari kon ñoo ngi ñaan rek ne defar Sénégal lañu bëgg defar Sénégal rek moom moo ñu yëkkati defar Sénégal rek moo ñu ñor ñun ñi ñëpp ñu ànd kenn ku ci nekk waroon naa mën a toog ci suma place bii tey ñoo ma ko gën a mën ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a bëgg seen bëgg Sénégal sax damaa jaaxal seen bëgg Sénégal sax daf ma jaaxal donc patriotisme nag dañ koo donn Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu sacrifier seen dund yépp pour Sénégal El Hadj Omar Foutiyou Tall lu mu pour Sénégal amul. Thierno Souleymane Baal la révolution Torodo lu mu dajul Sénégal amul waaye gis nga ko ca élégance ba mu defee révolution ba pare dafa jox Cheikh Abdoul Khadir ne ko yooyu yaay gouverner xam nga loolu du du du njëriñ loo <laughs> donc ñun sunu bët foofu lañ ko teg. na Amérique ñuy tuddee Abraham Lincoln di tudd George Washington France tey jii tout le monde veut être gaulliste ndax de Gaulle lekk ndeysaan taxawaay bu am solo ba mu defoon ba nga xamante ni Allemagne jël na France téye ko ci loxoom mu ne déedéet français yi lii mënuñu ko seetaan jóg leen ñun ñooñu la ñu teg suñu bët dañoo bëgg père fondateur yooyu ñu revendiquer ko ñooñu duñ leen nier ci suñu histoire duñ leen nier mukk ci suñu histoire ba ci génération bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji malik ak mag ñi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo seqoon réew mi Maulana Cheikh Ibrahima Niass ba ci doomam bi nga xamante ni moom moo fi mujj muy euh, moo fi nekkoon muy Seyda Mariama Niass nekk jigéen def ci jàng ak jàng jàngale lu am solo son effort de guerre contre l'ignorance est inestimable waaye ñooñu ñu leen jàngale ñooñu nag lañu bëgg a dem seen ndono lañ bëgg a yóbbu assemblée nationale donc patriotisme boobu ñun foofu lañ koy nàmpe foofu lañ ko jële foofu lañu ko jànge donc li ñuy def tey amuñu ci benn complexe amuñu ci tamit benn regret parce que ñu bari dañ lay ñeewant naan la li ngay dugg nangam ak nangam sama yaay soxna su tedd see fan yëpp nelawut waaw ah, waaye moom lii ci maamam laa ko donnoo ak baayam <laughs> ah, moo tax pexe amul li sañ Cheikh doon wax taxaw rek mënta ñàkk donc maa ngi leen di gërëm bu baax encore di leen sant di woo nag ñi nga xamante ni yépp ñun ñoo bokk gis-gis les mouvement citoyens góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñi nga xamante ni def politique mësul nekk seen yëf ñu leen di wax ne leen politique lu am solo la politique lu am solo la politique mënta ñàkk ci dundu doomu aadama waaye nag li ñuy bañ mooy nit def ko métier ñi nga xamante ni ñoo professionnaliser la politique koo ci laaj lu muy liggéey ah yenn saa yi sax mu ne je suis dans les affaires fekk politique rek lay def ah ak dóor marto ak lijjanti ak làqarti loolu ñun ànduñu ci donc politique lu am solo la loolu moo tax ñun dañu am gis-gis ci assemblée nationale laay wax gis ne du parlement dans le jeu des institutions moom mooy nekk li nga xam dañ koy jël teg ko suñu bët am yéene egg foofu di tàllal suñu loxo ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañ ak ñun gis-gis bi ñu ànd ñu liggéey Sénégal ànd nag song li nga xamante ni moom mooy lii nga xamante ni moo xew te ma wax ne léegi d'accorduma ci muy le parrainage ñu ànd waaye parrainage bi d'accorduma ci parce que c'est pas consensuel lu doy la lu yéeme la d'accorduñ ci moo tax ma leen di delloo bal bi sénégalais ne leen parrainé leen ñu le maximum possible la ñu bëgg ngir ñu dem teew ci péncu ndaw réew mi ngir teewal leen fa sunu bopp yëkkatiwuñu yéen yéen a ñu yëkkati yéen lañu bëgg lii fi xew démb muy journée blouse sans blouse loolu lañ bañati mu am fi waaw loolu lañ bañati mu am fi ndax corps médical boobu ci biir Covid bi li ñu taxawaayam kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokku médecin kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokk boo xam ne yëngu ci corps médical ñu sargal leen tatagal leen sunu réew parewuloon pour découvrir virus bu toll noonu ñooñu nag justice tey jii mooy ñu mettre leen dans les meilleures conditions optimales pour ñu mën a def seen liggéey confortablement ñoom tamit ñu xamee responsabilité bi ñu am xam ne métier boo mën di exercer dans la vie dafa am un sacrifice boo xamante ni foog nga taxawee ko ba nga xamante ni di nga mën a rafetal sa digganteeg sa askan. Destin croisé deux points défi et responsabilité. dañu am destin avec le Sénégal sunu borom tànnal ñu réew mu am solo mi réew mu mucc ayib bi lépp la am manqué wuñu dara lu ñu teree dem kon foog ñu defaraat taxawaay bi taxaw temm ak fulla ak fayda ak sell gu mat sëkk taxaw taxawaay boo xamante li li ñuy def ngërëmal yàlla sunu borom lañ ciy wut waaw ah, ko crépuscule de notre vie du ñu am l'impression d'avoir vécu inutilement moo tax ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di dalal suñu loxo nag bàyyiwuñ kenn ngir sénégalais yi ñaanal ñu